defar texte yii yor football bi yii di ko tey doon ko defar ca Gorée maanaam fukki nit yaa ko doon defar man ca laa bokk ñu doon confectionné texte yi man ci laa bokk texte yi di yor football bu Sénégal kon lu ma xam laay wax. maintenant li nga xam ne moo xew njaareem mooy benn waaye moo jóge fële bu doon payeur général trésor trésor nag fu da ngay am xaalis ñëw ci football bi du ma dugg nag sax ni mu def ba falu du ma dugg ci loolu mais ci li may dugg mooy bi fi ñëwee ñu ne teg si football bi. dafa am lu ko régir maanaam as euh, ligue bi day jot xaalis ak mu ne dina jot ñetti millions pour organiser junior yi dina jot ñaari millions pour faire fonctionner la ligue pour faire fonctionner le football te loolu ñun danañ koy at mu ne 2010 ba léegi mi ngi koy jot ñu ne waaye yéen jot xaalis boobu at mu ne nag na ngeen dajale club yi ñu ne ci réunion bépp ngeen def bilan wax xaalis bi leen jox. mu ngeen ko utiliser nan ngeen ko defee ay compétition ba def bilan ak ay kayit yu leer ngeen yónnee ko fédération pour ñu mën leen a financer waat bi payeur général trésor ñëwee doon doon président moom nee na du ko def du woo kenn ngay wax xaalis xaalis football moom daal mooy toog yor segam c'est à lui de faire comme bon lui semble les gens en tout cas convoqué kenn waxul wax ko def assemblée générale on lui a mais c'est pas nous c'est le texte qui dit da nga war def assemblée générale mu ne ko et 2017 kenn mës a génn dëgg ci njaaram fu ñu woote assemblée générale dafa waxi xaalisu footballeur foofu am nee na du am loolu lu ñu remarqué la te loolu fédération moo war a béyee à ce que comme que booy jege xaalisam mooy bailleur bi xaalis bi muy jox Diourbel di ko jox Kaolack Kaolack def bilan Ziguinchor def bilan Kédougou def bilan Dakar def bilan Diourbel def comme ñoom waaye moom nee na loolu du fi amee te ba dëgg la ba léegi amul. amul benn club bu ne njaareem bu la mën a wax nga ne xaalis naa nga ma fi dugg naa nga ma fi génn nii la demee amul alors que teg fi daane force la mais ba mu ñëwee ba léegi nag moom nee du def loolu te def ko ñaareel bi ci topp mooy comme que defut bilan mu yónnee ñu këyit ne mooy bilan wu année bii passé këyit woowu mu bindal ci boppam ne moom payeur général trésor dugal na ci biir liggéey bi fukki million dix millions ci xaalisam. waaw ñun ba tey sax loolu dina ne ko bañ ndax soxla nañ xaalis waaye xanaa booy may ay nit da nga ne leen ak puisque maye ci réew mi dafa am lu ko organisé du ko neex rek nga ne may naa diw et cetera surtout que li muy mayee ci loxo càmmoñam moo koy génn ci loxo ndijooram parce que moo yor séquier bi moo koy mooy def séquier lii génn xaalis mais ñu ne ñun suñu xel dalu ci lii duñ bokk ci kuréel goo xam ne bayaa ji day xëy suba rek ne dugal naa fukki million ñu ne ko waa xaalis bi fu mu jógee mu ne bu leen yooyu yëpp loolu wóorul suba mën nañ ñoo topp ensuite fédération football dafa am mission wu contrôler liggéey réew mi dafa wóoratul ku ñu wax ne xaalis bi ñuy jël du xaal bu ñuy jëlee fenn fu tegut ci yoon di ko dugal ci liggéey pour mën koo génne te bañ ko ciy dugal ba léegi am dañoo waxoon ne chaque année club bu di dina jox deux cent mille francs subvention joxut benn club ñaar dërëm te xaalis baa ngi génn ñun dañu soupçonné ne y a une entreprise de blanchissement d'argent au ko yeewu jëlee bët set nga def sa chèque tiire ko dugal sa poche dem sa yoon loolu bu tudd blanchiment d'argent sori ko ñun loolu lañ suñ sonné moo tax nangu ñu woote assemblée daal nangu ñu wax ci xaalisu football bi loolu nag la ñu wax ne ñu ngi interpeller les autorités de ce pays parce que Sénégal Diourbel ci Sénégal la bokk waruñoo may kenn même boo dee payeur général trésor ngay def loolu la neex ci xaalisu réew mi loolu ñu ngi interpeller président fédération puisque moom lañ affaire bi njëkk interpeller bi nga xaalis bi ci biir compte football

sa équipe amul moyen ñoom dem football ji Matam waaye yu am nga moyen may ay nit ñoo xam ne seqoo ñoom dara fukki million mais on a dit y a un problème qu'il faut poser et loolu ça interpelle tous les Sénégalais dañ ko def kaf affaire football affaire coow affaire élection affaire élection je dis que ñun dañuy soupçonné ne am na entreprise de blanchissement d'argent qui est en train de se passer dans ce football et mieux bi loolu amee fédération football ko fédération football kuréelam gi gën a mag mooy assemblée générale fédération. assemblée générale fédération day jëlee club bu Sénégal yëpp ne leen problème mu Diourbel bi nañ ko réglé tànn nañu président ligue Kaffrine tànn nañu président ligue Thiès tànn nañu président ligue Fatick tànn nañu président ligue Kaolack yéen ñeent fédération jox na leen ndigal na ngeen dem Diourbel xool problème bi réglé ko ni ko teg si wax ngeen ñëw rendre ñu compte loolu daaw ba tey ñuy wax yow ni pour la première fois dans l'histoire du football assemblée générale fédération joxe ordre kenn bañ ko exécuté te xaalis yi dugg ci ligue bi ay 10 millions yu kenn xamul nit ña bëri ñoo wóorutul dalu suñu xel nga moo tax ñu bëgg défier les textes de la fédération de football mais am na lu tax loolu lañ bëgg xam lan la léegi nag ñun ñu bëgg ñoo sacrifier yéen nañ leen suspendre ndax ñoom dañuy coow dañuy laaj ay compte te fii kenn du fi laaj seen yoon donc ñu ngi interpellé président fédération football di interpellé sportif yëpp ne leen pour la première fois assemblée générale fédération football joxe na ndigal waaw nañ ko digal lànk nañ dara fekku leen ci loolu mi ngi Sénégal bu ma sa fekkee mbaa nga mas koo gis wax ko ma ne mosuma koo fekkee assemblée générale bu dee lii la bu dee dëgg la loolu la bu dul mais depuis daaw lañ leen ko waxoon ba leen koo ci woon woo ko bopp dara waaw dinañ ko seet fan waaw mën naa am ñëw lu tax ñëwuñu c'est cette question donc loolu la ñu waxoon ne vraiment il faut ñu leeral ko seen boobu lan naa li tax demuñu ci convocation match yi ndax dañu bind seen PV nañu waa suspendre nañ leen parce que dañ leen convoqué ñëw leen waa ñun ñu bokk ci ab ligue parce que fédération football dañuy fay suñ cotisation fédérale fédération nañu bala gën a football na ngeen dem fay assurance assuré gone yi indi football lu na buñ gaañoo la nga tax ñu fay loolu ñu toog ci benn kuréel lu mësta am ci lu Sénégal amut fenn ñu yónnee ñu match secrétaire général bi yónnee ñu pour benn match yónnee ñu convocation vice président bi yónnee ñu convocation pour benn match bi président ñu convocation pour benn match benn match ñetti convocation ñetti lieux yu bokkul ñu ne ñu laaj leen ñun fu ñuy dem kan la ñuy footballal ñu bind lettre fédération ne leen lii am na fi bind nañ yónnee nañu lettre mi ko yónnee depuis daaw ne ñun kat jot nañ ñetti convocation pour benn match nu ñuy def loolu moo taxoon fédération posé affaire bi assemblée générale wax la toog ba tey loolu weesu na daaw def nañ final toog ba léegi ba match yi bëgg tàmbali ñu ne waaye yéen daaw ñëw leen woon kon dàq nañ leen mais na lu ba lu xew donc loolu moo waral ñun demuñu parce que bu dee jamono gi ma jiite ñetti convocation lañ jot pour benn match xaw ma ci fu may dem ñu wër mbedd di taxawalu dundool gone ci loo xam ne bu ëllëgee ñu dam fa la leen dal ma ñu ne ma président ba ñu ci yóbbu bu ne woon dem leen boobu ñu ne muy jóg bu ko woon tey suba ñu dem defi ko mais fédération dañ ne ñu taxaw nañ ak kuréel kuréel gi dana dana dana dana saytu mbir mi dañ leen wax nan lañ réglé problème ñu toog di ko xaar gars yi profité kon nañ leen dàq suspendre leen ndax léegi élection yi jubal si nañ ci profité sax dàq leen ndax ñoom lañ bokk ci yi mais bon donc loolu mooy li nga xam ne mooy li am donc leneen lu ngeen di dégg nag da dañoo baax dañu leen a convoqué ñëwuñu convocation yëpp a ngi nii ma beneen bi nga xam ne moom lañ ci tubaab te nga xam ne mooy kumba am ndey ak kumba am ndey wala njaari mbokk dañoo bokkul ci Sénégal di nga kayit yi ma yor nii convocation match la Ziguinchor la jóge Ziguinchor secrétaire général bi moo convoqué président ba convoqué wul vice président ba convoqué li ligue Ziguinchor la bii ligue Dakar la convocation match Dakar la le secrétaire général ligue ba moo ko convoqué mi ngi nii kenn président ba convoqué wut secrétaire général ba convoqué wut partout dans le Sénégal yëpp ay convocation la yoo xam ne secrétaire général ligue yi ñooy convoqué match yi amul benn problème. Diourbel la ñuy jot ñetti convoqué bu secrétaire général bi wootee président bi woote vice président ba woote loolu Diourbel rek la am yii yëpp région Sénégal yi yëpp benn convocation la ñu nit ñi dem di football ci jàpp mais pourquoi Sénégal football doon benn texte yi doon benn. dëkk yëpp secrétaire général bi convoqué euh, seen i match Diourbel ñu ne secrétaire général bi ko convoqué mais ban problème la ñu am parce que peut-être général bi peut-être joxee ko joxee dossier euh, taabale ak ak ordinateur yi ne ko yaay secrétaire général dañoo bëgg jël taabale yeeg ordinateur waaye daa ne déet wax ma lii fu mu jógee bala ma nangu naa koo jël yow taabale ordinateur yi fu mu jógee su ma xëyee toog ci ma ñu ne dañ koo sàcc tam la may wax ñu naan ah, day laaj waaw ah, léegi day wut laaj ak fu mu jógee xaar dañ ko dàq. leen lépp nañ dàq nañ ko dàq mooy bi ñu ko joxee taabal ak ordinateur ki bureau daan leen lii fu mu jógee pourquoi man su suma ko jëlee suba nañ def inventaire bind na jox ngeen ma nangami taabal nangami bureau nangami ordinateur bërëb sàngam la jógee mu leer ngeen bind signé ma signé tey ëllëg bu ñu ma laajee fu mu jógee ma ne fii la jógee mais mënumaa toog ci ay ordinateur wala ay taabal yoo xam ma fu mu jógee wala ñu may jàppale ñu dajaloo réunion ne bon comme que day laaj xaalis bi fu mu jógee ak taawla bi nañ ko dàq mu dem yoonam mais voilà le problème. këyit gi ñu jot président commission discipline moo ko signé ñun comité exécutif suspendre ñu waaw moo tax après nag mais pour leeral ko ba nit ñi que euh, football bi dañu wax ne ñuy àtte kuréel yi àtte ku ci bëgg a bokk ci ñuy àtte doo bokk ci benn équipe doo bokk ci benn club daaw dañu defoon seen commission discipline Modou Kassé nekkoon ci. bokkoon équipe bu avenir bu Mbàkke Paa Iba Gaye bokkoon ci nekkoon sonakos Sonacos Sanloupé bokkoon ci nekkoon Bambey nekkoon nekkoon AS Bambey biñ bindee fédération ñu ne noonu ligue football li ñu def amul fenn ku bokk ci club waroo bokk ci ñuy àtte daal di tas commission ba ne leen wutaat leen commission bu bees boo xam ne ñu bokk ci benn club ñoo ci nekk ñooy àtte mais xam nga lu lu payeur général def dem jëli Modou Sarr Modou Sarr mooy vice président Sonacos

mais jàpp nañ ne moom waru cee bokk sax bay dàq kenn parce que Sonacos la bokk mën a bokk Sonacos bokk ci ñuy àtte li dàq Modou Kassé dàq Baye Ba mais moo ko dàq. laaj nañ moom laaj nañ ko payeur général ne ko fukki millions yi nga indi mais fu mu jógee mais xanaa lu mu gàtt gàtt surga bu ñu ne may naan fukki millions ngeen ci may fu mu ko jëlee. benn ñaari bi mooy robinet yi ngay wax loolu ci ci moom li mu joxee nii comme kayit nee na commission bi ñu àtte bi ñu suspendre. jox na ko deux cent jox na ko vingt quatre mille. deux cent quarante mille. pour la première fois dans le football Sénégal ab commission de bu génne ñaari PV ñu dox la deux cent quarante mille moom ñoo ko bind mi ngi di daal dox yi. loolu la ñu bi dañu naan teg nag boo xam ne amul téléphone amul siège bagage yaa nga stade nit ñi dañuy daje di waxtaan nee na jox na leen pour fonctionnement un million trois cent quatre mille moom lañ fonctionné loolu la ñu bi dañuy teg nee na district jox na cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent francs loolu mooy district yi ñu teg nee na subvention ci li muy maye xaalis bi muy maye ñaan way day maye day maye si bon daal lañ ko jox yi may na diw may na diw nee na loolu quantifié na ko mi ngi doon euh, deux millions trois cent mille francs moom may na ko en terme de subvention xaalis su bant subvention mooy yaa léegi noonu yi teg moom ci maye gi moom équipe équipe moom kenn joxu leen dara mais ñi may ah dafa baax ku yaru la day maye xaalis nee na xaalisu football bi mayel naa leen ci deux millions trois cent mille francs dañuy soupçonné ne fukki millions yoo xam ne xamuñ fu mu origine bi mën naa doon blanchissement d'argent léegi yow mii maye yaa ñoo ne fu ma jëlee fii la jógee parce que noonu la ñu def acte de donation c'est que mënoo tëb acte à l'absolu mais yow mi maye yaa ñëw justifié ne xaalis bi may maye fii laa ko jëlee fii laa ko liggéeyee nii laa ko maye waaye yow fekk ay nañ jolta wax naa ne la équipe am dañ koo forfait barki démb contre Matam demul joué ji contre Matam nan nga mën a mayee fukki million ab entité boo xam ne bokkul ñoom dara ba sa équipe ñu forfait ko mënta rek c'est-à-dire donc problème yooyu ñuy wax moom ba dañ nekk zone rëb nga ngay wax mais li jàpp mooy ci biir maye noo naataange yaataa yi mbéy yaa baax moom subvention na ci deux millions trois